damay balu ak euh, suñu mbokk auditeur ak euh, képp kuy déglu Safina FM wala ngay mbokk sénégalais wala ngay suñu mbokk julité ñing lay balu ak bu baax euh, di bal ak ñëpp di leen wax ne nak ñu dugg ci weeru koor geeg gi jàmm ñu génn ci alhamdulilahi rabil alamin te xam naa ne incha allah danañ ko woor de retour sur votre émission ëttu ndaw ñi sur la 98.2 comme niñ leen ko waxee ëttu ndaw ñi day dem ak actualité le jour au jour lendemain kay teg tànk ak tànk mbagg ak mbagg comme niñ koy defee saa su nekk Makoura Diagne tey nekk ci waxukaay gi nag tey Ablaye Moussa nekkaat ci chronique bi nekkaat ci milieu terrain bi comme ni ma koy waxee nag laataa loolu nag du ma ci sore nag dama leen di bàyyee ñun ñoo Ablaye kàddu gaa ngoog. fay naa la Makoro Diagne di la jaajëfal bu baax di nuyu suñu mbokk auditeurs yi ak auditrices yi nga xamante ni ñoom ñoo safoo la rajo des bonnes valeurs ngir di fi tataan ay xibaar ak émission ak yeneen di nga koy defee nag nuyu suñu PDG Thierno am Yoro Bane suñu directrice madame Ñuuma ba Gange di ko ndokkeel di tamit nuyu képp ki nga xamante ni moo di xelaaci Malick uh, Gueye ngi ne ko rek mu daal di séddale waaye tamit uh, ñi nga xamante ni ñooy topp émission bi Babacar Ba nekkee ca fi nga xamante ni moo di Malika di ñu fa dégloo di ak ñoom Pafal ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax a baax tey nag uh, comme ni nga ko waxee Makoro Diagne comme émission ëttu ndaw ñi nag dafay topp actualité day topp actualité di waxtaan ak li soxal ndaw ñi ba tax na nag ñuy nar a waxtaanee li nga xamante ni mooy tiis bi dal fii nii ci Sénégal. Sénégal nag daal ñi nga xamante ni ñooy ndaw ñi rawatina étudiants yi di génn àdduna Alaaji Fallou Silla moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy dañuy waxtaanee te wax na tey nag ñu dalalaat fi suñu suñu naataangoo Seydou Nourou Niass di la bàyyi ak kàddu gi nga daal di nuyoo Euh, maa ngi lay fay Abdoulaye Diop di rafetlu euh, bu baax ci seen émission bi di ëttu ndaw ñi euh, di nuyu encore Macoura Diagne comme ni nga ko waxee balaa ñuy def dara dañuy nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu PDG di Thierno Hamidou Bane ak suñu directrice madame Nioumaba Gangue ak euh, mboolem auditeur Radio Radio Safina euh, di len wax euh, bonne écoute si sen Radio 98.2. jërëjëf euh, Seydou nooru Niass comme ni nga ko waxee rek te nag thème bi euh, loolu la di maanaam ñuy waxtaanee li nga xamante ni moo dal étudiants yi ñu koy seetlu c'est pas la première fois tey jii ab étudiant di ñàkk bakkanam ci li nga xamante ni mooy bu ñuy laaj seen i bourse mu mel ni rek comme émission bi ni mu koy waxee c'est émission magu ëllëg ñi la donc day ji dafay jot ñu taxaw dafa taxaw seetlu nag jéem a wax ci naka la ñuy def rek ba benn jiyee bu mel nii nar bañ a amati ak responsabilité yi tamit euh, ñàlla parce que nguur geek. Euh, gis nga dem étudiants yi bañu méré sakku nañ sax démission ministre beek ñom ñëpp sakku nañ beneen beneen beneen fee bi tamit moy gis nañ ba faatu amee rek c'est la ñuy génn commencé di génné bourse yi alors que jamono ji yag étudiants yi di laaj di xaw seen bourse manifestation yag na am jigen sor amon na fa lata lata UGB di yëngal feneen ak feneen Dakar tamit pareil mu melni rek day tay ji nguurub Sénégal dafa melni ni euh, ay médecins après la mort lañ nak ba taxna tay ji ndaw ji système éducatif universitaire bi ni mu dee 1960 soixante ba léegi mënuñoo mënuñoo mënuñoo mënuñoo fexé ba régler problème bourse alors que euh, après décès Bassirou Faye en deux en 2014 mille quatorze le président Macky Sall avait pris des engagements né problème bourse dotul nek ben yon problème étudiant yi ginaaw bam leen dalalé mu quatre ans trois ans après wala quatre ans après tay jii Macky Sall lim lim waxoon lim waxoon euh, amul xawma nak ba xam ñim nufa ordi ñom ñoko ñom ñoo ko wala num fa num fa en tout cas dal na ñukay nakaru nak di bu baax képp étudiant rawatina mbokk fallu seen yooyu ma ko rajo ñëwaat ci plateau bi ma bàyyi la kàddu gi. waaw comme ni nga ko waxee rek dañuy baloo dañuy jégalu dañuy jé dañuy jaalewaat ki nga xam te ne moom moo di fallu si see ak ñi nga xam te nañ cee ñàkk seen am na keneen ku ci génnaat àdduna mais nag en tout cas man lu ci gën ti li ci man li ma ci mën a jàngat daal man position ba ma jaru ko. ñi naan est-ce que jar na ko ba ngay marche bañ la ciy rey parce que am na sax tey ñu ma ci doon waxal ñu naan déjà lii am am na Fallou seen day perte justice euh, dëkk bi amul justice et cetera te est que tey esprit boobu ñëpp di demee ñu naan justice amul ci dëkk bi Fallou seen day perte keneen ku ñu reyaat suba noonu lay demee parce que Fallou Sène c'est pas nekkul c'est nekkul le premier euh, la première personne boo xam rey nañ ko ah reyoon nañ fi ay Balla Gaye ay ki ñeneen ak ñeneen jot nañ fi ba ci ba récemment Basirou ah moom lañ fi mujjee rey ni ki démb mais est-ce que tey état bi bu ñu jëlul matuwaay ci loolu mu dakk jeex fi benn yoon est-ce que tey c'est pas la scène bi moom mooy ñëwaat rek parce que tey même esprit mooy daw ci bopp sénégalais yi fàllu fàllu day perte fàllu day perte mm-hmm. Euh, waaw Macoura euh, man dama naan euh, bon balaa may tàmbalee damay profito di jaale mbokku Fallou Sène di naqarlu bu baax mbir mi nu mu demee parce que doon na ne li nga xamante ni lii kenn du ko rafetlu mais ñi ma li may tontu ñi nga xamante ni ñoom ñaa wax ni est-ce que mbir mi dina avancer wala déet que Bassirou kii Fallou kese moo perdre déedéet ñoom xanaa dañoo fàtte ne fii si réewu république la ñu nekk dañoo am suñu justice am suñu li nga xamante ni euh, yoon bi nga xamante ni moo ñu tënk ñun ñëpp ñooñu waruñu taxaw tey di naan mbir mi du mujj fenn euh, c'est vrai li am am na euh, kenn rafetlu ko mais responsabilité yi nga xamante ni nguur gi dina ko situer ba ñu xam fan la mbir mi tàmbalee ak lan moo ko waral ki nga xamante ni moom moo def jëf jooju yoon dina dal si kawam bu ñu seetee Basir bi ñuy wax nii Basir bu mu faatoo enquête te ji nañu enquête bi ñu demee ba xam kan moo ko defoon kooku mu ngi nii tëdd. mais nag kon loolu nit ñi waruñu def esprit ci seen esprit que ni euh, kii Mouhamed Fallou moom mooy perdre moom mooy perdre mbir mi du dem fenn déedéet li ñu war a wax kay mooy lan moo tax mbir mi xew. ak mhm. nan la xewee loolu jar na aussi ñu leeral ko bu baax. Mhm. Euh, xam nañu étudiants yi euh, ñoom ñëpp du ñoom ñëpp ñoo amandoo bourse. Mhm. am na ñi nga xamante ni ñii bourse entière la ñu am. loolu mooy trente trente six mille yi ngay gis. ñi am demi bourse ñoom ñooy am dix huit mille. loolu. Euh, mën nañ wax ni góor gi fi toog tey def na si def na si jéego yu ba yu yu rëy parce que si après décès euh, Bassirou Faye mhm. si la président de la République Macky Sall jël ndogal ni bourse si dootul tardé mhm. mu utal leen pexe yu bëri parce que fii benn banque rek moo doon fay mooy Ecobank. après nag lañ si dugal yeneen i euh, euh, structure financière yi nga xamante ni dinañu mën a fay da ngay toog sax ñu envoyé le message naan la euh, sa compte viré nañ si xaalis nga dem fayewu mm-hmm. loolu yëpp si jéego la pour mën a nu mu doon permettre étudiants yi ñu mën a am si seen bourse à temps. Mm-hmm. bi mbir mi tardé nag si la étudiants yi commencé di def ay grève yu ndaw. di naan ay dañuy def li nga xamante ni mooy ngénte tubaab ngénte tubaab mooy mhm. comme que ñoom jotuñu seen bourse dañuy dem si restaurant yi mhm. lekk naan te duñu fay dara mhm. ñu def ko benn ëllëg si ñu bëgg dellu defaat la même chose si le recteur bi woo euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy takku der yi pour ñu ñëw aar restaurant bi bi ñu demee nag bu ñu ñëw ñoom étudiants yi ñoom ñoo commencé encercler gendarme yi commencé di sànni ay xeer commencé di euh, xam nga université mbooloo mu fa nekk amuñu policier lim bu to bu mel noonu. Mm-hmm. si la ñu commencé di sànni xeer tey ji boo seetee photo yi c'est nit ñi dinañ ne euh, étudiants yi lañ gaañ étudiants yi lañ gaañ mais tey am na policiers yi nga ni jël nañ si gaañu gaañ yu métti. jël si gaañu gaañu yu métti donc loolu euh, doon na mbir bi nga xamante ni jar na ñu euh, leeral ko bu baax. le fekk que étudiant bi gaañu c' est vrai naqar nañ ko mais aussi bu ñu fàttali ni policiers yooyu ay doomu jàmbur lañu te fii nii bu ñu fàttalikoo ci at ñi ñu weesu mooy ay 2011. am na benn policier bi nga xamante ni rayoon nañ ko fii brique lañ waaw waaw Fodé Ndiaye brique lañ ko dóor si bopp ku la wax ku wax ni démb bu ñu bàyyi woon ak mbooloo mu takku bi nga xamante ni étudiants yi nu ñu àndaloon ak fit bu ñu amoon du ñu dal seen kaw nangu seen gànnaay dóor leen ay bal ñoom tamit donc ñoom euh, mën na jàpp ni dóor peut-être bal bi bu ñu ko dóoree mën na mën nañ wax ni c'est c'est une balle perdue euh, du loolu moo leen taxoon a jóg faat doomu aadama xëy na bu mbooloo bi paree si la euh, waa ji jël armem tiré si kaw gars yi loolu yëpp taxul ñu reculer commencé di leen song parce que dem boo seetee étudiants yi lim bu takku la ñu àndaloon. te lim boobu fu ñu dem ba tey fi ñuy wax ak yéen sax ah, université xaw naa tàng sax ah, situation bi étudiants yi yaa si tali bi ba nii fi ñuy waxee ak yéen ñu ngi mars. loolu la loolu la démb loolu bi affaire bi xewee nag foofu si euh, sa UGB waa Dakar dégg ko ñoom tamit si la ñu génn commencé di manifester boo seetee tey jii nii ñoom lu ñu si yàq bari na. parce que euh, jot nañu taal ñaari auto police yakal nañ ci nga xamanteni sax ñi faruñu ci nguur gi euh, seen bopp lañu liggéeyal mooy ñu ñaan les privés ay auto yu doon jàll ñu toj go wala oto yi nga xamante ni oto jàmbur la ñu lakk ko loolu yëpp aussi war nañu seetaat euh, mbir mi bu baax nuñ koy doxalee ñoom étudiants yi ba ci ba ci sax li nga xamante ni moom mooy Dakar dem di kii parce que boo xoolee euh, yiy jël nar a jaar côté cité duñ fa jaar démb loolu loolu buñ koy yàq ba te oto bis dem di kii ñoom ñoo ci yéegaat di ci xëy loolu paralysé na gis nga démb démb boo seetee ñi doon ñi doon jël avenue Cheikh Anta Diop bi yëpp dañoo am problème ñii di jógee Wakaam di dem ay ay wala ñii di jógee ay ville dem kii ñëpp am problème euh, transport parce que oto yi dañuy obligé di dévier te loolu déjà rek lu muy yàq si suñu économie kenn xamul lu mu toll étudiants yi war nañu xoolaat c'est nit ki mën nga mën nga ñaxtu mën nga wone sa naqar mais quand yàq wala di toj yooyu kenn waru ko aussi rafetlu daal si réew mi mel ni Sénégal. 88 628 10 95 88 628 10 95 mooy bunt bi rek ngeen dugg ci ñu mën a waxtaanee li nga xam ngeen dugg ñu waxtaanee ko mais Ablaye. Mhm. li ma posé Seydou Nourou laa leen di laa lay posé. Mhm. parce que tey koo wax rek. dañ ñaan Fallou day perte. Mm-hmm. fils unique la fils unique la day perte. Mm-hmm. te est-ce que tey position boobu nga taxawee parce que dëkk bi amul loi la ñuy wax kon Fallou Cissé Fallou Sène day perte est-ce que tey partagé nga même idée boobu. non man partagé wu ma ko parce que régime bi fi nek ñom ñoo euh, bonne gouvernance que euh, vertus ak sobre justice ak yooyu yëpp mm-hmm. ñoom ñoo ko ñoom ñoo ñoom wax te yaakaar ni avec euh, la mort de Bassirou Faye wané nañ ko parce que japp nañ ben policier ñaar sax daan len sen giru dund 20 ans de prison lañ len lañ len daan ginnaw sen sen procès mm-hmm. mais yaakaar na ni tamit sank sey nooru ñu soxna ko nee affaire bi fi mu jugee maanaam mooy bourse yi limu mu tardé étudiants yi bëggoon lek Euh, mënuñoo lekk amuñu ñu dem ñu ne dañuy def euh, ngénte tubaab démb sax euh, ministère de l' intérieur boo ko déggee wax na ko mu ne ñun sax ba ñuy jàng dañu doon def ngénte tubaab donc ça ça ça se comprend loolu noonu su fekkee bourse yi dafa tardé man responsabilité responsabilité rectorat bi d' abord d' parce que yaakaar naa ni su fekkee yow. xam nga ni université tey jii bourse yi dafa retard nous sommes la quatorze et quinze ñi fa nekk tey jii xamoo yan moyen la ñuy def pour jàng am ñoo xam bourse bi rek la yaakaar parce que seen parents yi ñu bàyyi si village yi amuñu xaalis bu ñu leen di dollil seen kii. 36000 mm. fekkee moom la am si ñuy kolo kolo ba weer bi deewaat ñu jot ci affaire bi tardé yaakaar naa ne pour may leen ñoom ñu lekk après facture bi c'est l'état qui va état bi moom moo koy fay yow defal sa facture tu renvoies à l'état parce que yaakaar naa ni ministre wax na ko noonu la doon demee seeni jamono 1900 bañ commencé jàng ba léegi noonu la doon demee dañ laan am ngénte tubaab bi lekk yaakaar naa tamit loolu jarul woon ñuy woo ñi nga xamante ni ñoo di ñoo di ñoo di ñoo di gendarme yi pour ñu ñëw ñu ne dañuy aar xaw ma lan ak lan qu'est-ce qu'il a expliqué. d'après li xibaar yi ñu a dégg sax ñoom mm-hmm. nee nañ. Euh, du ci ñoom du ci maanaam nguur gi ñoom ñi faree ci gi ñoom Mary Teuw Niane nee nañ si ñoom. parce que bi la. banque bi moom moo yéex a envoyé message la preuve sax ci ngoon sax am na ñu commencé woon jot message bi commencé ñëw. moo tax nag moo tax ñuy wax ñun Sénégal gis nga dañuy voté ay loi mais duñ leen suivre dañuy joxe ay recommandations mais duñ leen suivre tey jii président Macky Sall bu jëlee en 2014 ne joxe na ay ay ay ndogal pour pour pour kon chaîne bi dafa bëri. Mm-hmm. léegi tey jii bu ñu demee bañ na banque bi moom moo yéex a jox banque bi bu yéex a jox parce que ministère finance génnewul xaalis. Mm-hmm. ministère finance bu génnewul xaalis banque bi du si jot. Mm-hmm. tu vois banque bi tamit bu jotul du mën a jox étudiants yi. donc day nekk chaîne chaîne boo xamante ni. foofu foofu Abdoulaye foog ma dog la tuuti. Euh, parce que boo seetee aussi mën nañ ne d'une part du si du si nguur parce que ñom ak banque bi contrat le signé. yow bu du mois bi envoyé envoyé da ngay def virement hmm. compte étudiant hmm. bu démé vous ba banque bi nga facture envoyé ko état bi ñom tan bu boba ñu mën fay sa xaliss euh, si duñ jël lépp këpp ko si état buñ ne banque bi d'une part responsable responsable si affaire yi loolu aussi jar na xoolaat bu baax et aussi nañu xoolaat newoon naa la sànq bi may wax benn banque kese moo fi nekkoon di fay mhm. euh, xaw ma ndax mhm. Mhm. ñëwee si la commencé di di diversifier affaire yi dugal si ay wari ak ay yeneen yeneen yeneen maintenant bu demee nag bañ ne la banque bi euh, moo moo loolu tamit lu jara lu jara lu jara bàyyi xel la du état bi responsable parce que démb rek démb rek maa ko doon wax maa leen naan yéen yéen a ngi joxoñ état bi mais boo sax état bi parce que dafay mel ni loo xamante ni ki ci kaw du ko yëg mais ci suuf lay état hmm. état hmm. état mënuñu ko ñàkk xamul tax parce que moom gan la moom moo yor li nga xamante ni mooy paiement bourse moom moo ko yor moom il se doit fekkee dafa joxe ay directives parce que du du yoon c'est pas la première fois wax naa la ko mois bële passé Ziguinchor ñoom ñoo doon manifester parce que seen dañoo toog je ne sais pas trois mois xaw ma tey ji tey suba yaa yaa yaa ku nekk sud-est bu sud-est enseignement supérieur mhm. wax na ko mu ne ba léegi rentrée ba léegi am na étudiants yoo xam jotaguñu seen i bourse am na étudiants yoo xam jotaguñ seen bourse donc ñoom ba xamal la moo gën a bon ci état bi fi nekk nii moo naam ñoom il communique pas dañu nekk ba mu ne kët ne jonn wala jiyee am ñu soog a di wax su fekkee étudiants yi ñoom comprendre ñu mais jàng nañ boo envoyé message wala nga communiquer nga neen seen bourse yi mois bi dina tardé parce que lii ak lii ak lii dinañ toog muñ ko mais su fekkee waxoo leen dara ñoom dañuy jàpp ni rek yow état yow yaa bëggut a fay bourse yi yow yaa ko yor te bu te bu ñu xoolee te bu ñu xoolee li ma la wax nii bu ñu xoolee bu ñu dañ ne dëkk bi par exemple amul xaalis ay soob la dëkk am na xaalis ah, am na moom dëkk bi am na xaalis parce que bu yàggul tey ji juróom-ñeenti pêcheurs fi yi fi génn seen àdduna xaw ma ñaata million lañ fa yóbbu. Mhm. tu vois les femmes d'ambassadeurs ñoo ñu ngi leen jox chaque mois 500 000 francs tout tardé. tu vois ñoom fonctionnaire yi ñoom ministre ñoom député est ce que ñoom seeni salaire dina tardé gis nga député buy kaas ne sama salaire dafa tardé gis nga fonctionnaire buy kaas ne sama salaire dafa tardé tardéwul ça veut dire ñooñu bu tardé dañoo mënul wàcc si yoon bi parce que bu ñu bu bu ñu wàccee di parce que eh, ay opposant am bu ñu tardé wàcc parce que ay opposant lañ bu tardé dañuy wàcc bu tardé fonctionnaire yi seen salaire le 27 la ñaata la ko tu vois hmm. donc ça veut dire que priorité priorité la xamul étudiant étudiant koo xamante ni yow yaa war a il se doit l'état de la dans de bonnes conditions dafa lool lool nañ ko lool lool nuñ ko mais au moins la des choses bu la cinq la mhm. parce que le ñu nek ñu Dakar dem Saint-Louis c'est le problème man. Mhm. ce problème parce que problème jangalé que yi la tay yi man problème est-ce que le problème enseignant que le problème yi ak problème bi ñoo bëggul wala tous les moyens sont bons pour ñu que le problème ou qu'est-ce qui se passe. Euh, le problème moy Makoura politicien. ke ñepp doon politicien même bo sété syndicat yi sax ñu ëmb jàngale kat yi ñu ëmb étudiant yi ak di lepp lah. hmm. ko jël tay politicien la ku nekk da nga naan naa jéema yuuxu ndax wala ma kaas ndax man tamit ma mën am poste loolu mooy problème bi mari taw ñaan tey réforme yu mu indi tey si système éducatif sénégal c' est à saluer ñëpp war nañ ko euh, euh, félicité si mbir moomu parce que tey ji boo seetee université yëpp euh, problème logement amatu fa problème benn problème ngay dégg si suñu université yi problème bourse mais tey jii nii. tax ba ñaari étudiants faatu ci mais attends loolu tamit nañ ko seetaat étudiants yow da nga ñëw di sàkku xam-xam mosuñu gis fii étudiants yi ñu manifester di naan ay euh, dañoo amul amphi yu baax dañoo su fu ñuy jàngee aw dafa amul siège yu baax dafa amul lan ngay dégg problème bourse problème bourse yow mi nga xamante ni da ngay jàng bu fekkente ni yow état bi moom moo lay fayal euh, presque boo seetee tey feuille yu ñuy defee examen ak lépp. mais état bi moy fay lolu ñi leen di jangal état bi moy fay lolu amna yenn réew yi bo fa démé do am état bi du jël bourse may la bourse bi day doon ben genre euh euh prêt la dañ la koy jox bu démé ba nga paré jang am liggéey ngay rembourser affaire bi ndank ndank donc tay ji yow sa réew bu jëlé dara di la ko may bu tardé tamit war nga xamné ah ki ko comme ko daf ma doon may li tardé na euh, na jema patiente touti xeyna fi ak euh, quelques jours affaire yi euh, stable waye bo né

ba jéggaale seen émission bi. Uh-huh. émission yeete la. jërëjëf. foofu la. te ku ko déglu tam dañ koy am njëriñ. man nag suma biir kii laa koy wax de. Uh-huh. man dama yaakaar njàng. Uh-huh. dafa am lu mu tekki ci doomu aadama mu koy may. muy ñaar. xel. ak xalaat bu rafet. xel nag soo amul xalaat bu rafet amul rek day dugg ci erreur. xam nga bursi. lu eh, mu tuddaan eh, eh, mhm. ah. mhm. mhm. di kii lu mu tuddaan ko gouvernement nit warna rewande ke linga moom fekka taalilo oto domooti kiiru ñu yàq alal jàmbur munoon nañu takk seen baraaru taxaw foofu wala directeur bi romb leen ñu ci rewande kaas bokk waaye taal oto baare mbedd bokkut ci ku tuuti ko man dañ dama yaakaare ci li ma gis-gis mhm. li ñuy def moom jaaduwul daal mhm. taal ay oto mhm. yàq ay kii loolu yëpp du jóge ci ñoom ci affaire ay quarante mille francs wala ci loolu dafa jarul topp ñu delloo seen xel ñu ànd xam nga nag loolu nag ci kër lay jóge nit bu amul yar ci këram amul yar ci baayam bu demee école noonu lay mel nañu delluwaat euh, alkaati yi gendarmerie dañu aar réew mi mm-hmm. amoo droit sa kaw di sànnante ay xeer ak alkaati walla gendarme mm-hmm. soo defee noonu pour le gaañ la ëllëg tam yaa gaañ sa bopp dëgg de biir palaat dafa jar loolu dëgg la rahmatullah di ko jaajëfal euh, moom euh, Baba Warga li mu wax mais aussi laay li Baba Warga wax euh, seenu seenu defe naa dégg nañ ko. Mhm. mais laay tey man sama problème est-ce que tey eh, aajuwu leen étudiants yi tey ñu def annonce maanaam ñu xam la ne fekk fii par exemple comme fii ak semaine bi di jeex wala fii ak weer bi di dee seen bourse bi mayul ñu marche def maanaam benn communiqué def alerte parce que man dama gis ne léegi bourse bu tardé duñ tax def alerte mais bourse bi day tardé rek suba rek ñoom ñëpp ñu wàccandoo. est-ce que tey jotul tey ñoom ñi def annonce di xam ne maanaam alerter nguur gi su ko defee bu bu ñu marché ñëpp mën a ànd ak ñoom dëgg la dëgg la di rafetlu bu baax kàddu suñu papa jooju war nga di ko jaajëfal bu baax a baax moom fidèle auditeur ci rajo bi sax la bokk mën nañu ko wax ñu koy jaajëfal wax na wax na wax na wax na wax ne yu yu am solo mu ne bourse rek jarul yaakaar naa xel ak ko xalaat nit da ko xel bu rafet da ko war a am dëgg la étudiants yi étudiants yi tuum taamal nañ leen di leen tuumaal ni ñoom dañuy yàq rek bu leen dara mettee rek dañuy génn yàq yaakaar loolu tamit nguur yi fi jaar ñooñu ko tàmmal. Mhm. yaa ngi koy wax nañ dañu war a arrêté. Mhm. dëgg la mën nañoo toog quatorze jours quinze jours wala trois mois duñ jot seen bourse dañuy yëglu def ay mhm. grève étudiants yi décrété ay grève yaa ngi koy yàgg dégg étudiants yi grève grève nañ quarante huit heures du professeurs yi ñooy grève mais su fekkee dañoo danga nga nekk régime boo xamante moom yow sa bourse boobu moom teelu ko leneen moo ko yitteel moom balaa moo mën a yëngu ci sa bourse bi nga génn taal yëngatu ñu ne université baa ngay tàkk ñu soog a réagir. Hmm. mais te obligé nga def noonu. su fekkoon tey jii le régime am nañ ay renseignements généraux réunion étudiant day am Dakar dem dikk ñuy wax société hmm. nationale. Hmm. bu euh, pavillon A ñun des ñu fa. manifestation suba. kii du romb Dakar Dem Dikk du romb fii du fa romb yi ils sont renseignements généraux ñi ngi biir université toog loolu foo ko foo ko ñu wax ko lu étudiants yi di nas xam nañ ko lu étudiants yi di waaj xam nañ ko donc voilà ñoom xam nañ nguur gi xam na li la laa def dañuy lu ak toog ba mu ni kët ni joon wala ba jiyee am ñu soog a réagir di jug di ci politique wala di ci def leneen loolu nag moo dul normal étudiants yi ñoo nañ yàq li ñu yàq nañ koy yàq de dinañ ko continuer di ko def parce que xamul ñuy continuer di ko def nguur gi moo leen di tànqamlu à chaque fois bu ñu yuuxoo bu ñu grève grève 48 heures grève 72 heures kenn faalewu leen dañuy génn manifester parce que bi man li ma la wax bourse bi même su fekkee xeeb nañ ko dañ leen ko war a jox parce que nguur gi moo signé loi la moo ne ñu boo amee bac remplir les conditions dañ la jox bourse bu ñu la joxee bourse 36 000 moitié wala dix huit mille chaque mois dañ ko war a jox loolu ça coûte rien à l'état bu ñu waxee mun a bu ñu waxee ñu ne ñu ne ñoom ñoom ñoom enseignant ñoom ñoom pour élèves yi dañoo yaakaar ñun donc ñoo fi nekk du loolu bourse de sécurité familiale yi ba mu bëggee mu dox mm-hmm. est-ce que daan na trois mois vingt cinq mille yi day jot daawul tardé leneen ak leneen loo xamante ni fi ba mu bëggee mu dox doo ko tardé kon lu tax trente defe naa loolu muy xaar ba ba ba bakkan di ci rot. defe naa loolu loolu loolu loolu bi moo moom moo def faay parce que trente six mille ak cinquante mille ak dix huit mille du dara état bi war na see mën a taxaw loolu yëpp di am mais Seydou Seydou Seydou Seydou est ce mbir mi. Euh, politique la lu si ginnaaw. parce que tey gis nañ démb ak tey euh, ñi fare ci ëttu ku jéegi ñu ci bëri ku ci nekk rek far nga ci étudiants yi di sànni xeer est ce tey nekkul loo xamante ni nii dafay servir euh, maanaam ñi nekk maanaam ñu wax ne ñoom ñooy ngémb wax. Euh, waaw Makoura gis nga sànq bi may wax nee naa la léegi ñëpp doon euh, politicien rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo fare si kujje gi. Mm-hmm. ñoom dañuy xaar ba dara xew rek. ñu commencé di topp euh, nekk ginnaaw booy yi di leen di instrumentaliser di wax li di gëmloo booy yi lii état bi moo leen ko waroon a defal mu ngi leen di xañ seen i droit alors que bu fekkente ni tey jii ñoom ñoo fa toogoon ils feront la même chose tey ni euh, lim mais am na ñi nga xamanteni bu ñu tey. Mhm. plus que euh, régime bu fi nekk. Mhm. Euh, wax rek yi en fait parce que nit sommes amé sa bac dem ba université ñi def 3 ans 4 ans 5 ans xalé mhm. ñom ñi fa nekk ñep xam nañ état bi lu muy daj ci état bi courant dem si benn nga fekk plus de 5 machines ordinateurs di sen ndox yi da 5 sur 5. loolu yëpp état moo koy fay. état bi bu ñëwee sax ba lu ma teg sama bët la romb ci euh, seen. Euh, ñoom ñëpp ñoom ñëpp xam robinet bi nga dégg robinet bi xel ci biir. ba muy génn si boo waxee ñu ne koo ci wax ñu ne sama yoon la ba pare ba pare tey chambre boo dugg di nga fa fekk plus de ñii di imprimer di photo ñii di def lépp loolu yëpp si si si si ndoddu état bi la la la kii état mooy fay loolu yëpp mais kon loolu bu tardé lu mu lay fay bu tardé war nga am yoo tamit dignité nga toog muñ xaar mais boo nee kut ko kut il faut mu am sànq Ablaye dafa ne affaire bi euh, daanaka droit la c'est droit la mais yow tey da ngay jël sa xaalis nga def ko ci banque yow yaa ko moomal sa bopp da ngay dem dugal sa carte di retirer xaalis nga fekk mu nekk hors service loo ci mën doo dem dajji banque bi wala doo dem di sànnee xeer da ngay muñ donc nag yow mi nga xamante ni sa propre xaalis la mënoo si fexe ba jot donc nag boobu bu tardé li nga xamante ni lii dañ la koy may war nga am ngor quand même nga nga muñ. xaar ba nga d'accord naa mais xam nga xam nga problème bi mooy boo xamante ni. Mhm. day répété à chaque fois. mënuñoo gëm ñun 58 ans ñu am suñu suñu suñu indépendance mënuñoo régler problème bourse. mais est-ce que loo xamante ni c'est est dëkk yi ngay dem. am na dëkk yi ngay dem. bourse du obligation état bi da koy defal di la ko di la ko aal comme ni ma la ko waxee. koy prêter boo demee ba ba pare jàng. nga am sa liggéey ngay fay. ngay delloo affaire yi. donc nag tey loolu boo nekkee si réew bi nga xamante ne état bi moo la koy may. mais mais loolu tamit yow. war war loolu ku ko. du may de du may da nga jàng da nga jàng da nga boo ko amee critères di nga am

di jox. ñu ngi leen ah? koy jox ñu ngi leen koy jox. Euh, mais est tey boo taxoon ne léegi dootuma leen ko jox mais dama leen koy lebal wala dama leen koy dama leen koy euh, kii bu ngeen commencé liggéey. ba tey moo gën. xamal tey foofu tam beneen moor du fa amaat. du am moor day gën a pire foofu waxuma la benn de mais du doon ñaar du doon ñett lu fay am kenn kenn du ko mën a compter waaw ah. mais xam nga mais xam nga xam nga du doon doon may mais tey jii tardé gi hmm. dafa nekk loo xamante day mel ni tayef la yow xoolal rek à chaque fois Balla Gaye c'était la même chose hmm. ba muy dee problème bourse la woon ñu jóge ci régime boobu ñu ñëw nii ah bu promettre al régime boobu sax c'était pire parce que a ah, hmm. pisale mu dee Nous avons bourse Nous avons même chose problème de bourse mhm. problème bourse donc le problème c'est que le problème le président maxal a day directives mais il n'a qu'à prendre les sanctions moi je pense que sanction non attends non attends les sanctions moi je pense que fekkente dañuy wax sa sa sanction sanction yi bu dee la même banque bi banque partenaire bi dañ ko war sanctionné mais loolu la loolu wax sànq gis nga banque bi moo tax état bi euh, régime bi fi commencé di diversifier affaire di si dugal ay yeneen structure euh, financière pour ñu mën a fay euh, waaw donc nag loolu la lu jara lu jara euh, xalaat kay wala question bi nit ñi war a posé mooy hmm. lan lan moo nekkoon contrat bi nga xamante ni moo lii woon Ecobank ak état du Sénégal balaa nguur gi di fi ñëw hmm. bi nekk fii nii balaa muy ñëw hmm. looloo jara wax parce que mënoo jël euh, si benn réew bu mel ni sénégal nga xamante ne banques yi ñu ngi fi ñu ngi fi fees del, mhm. ngay jël lépp di ko jox benn banque loolu aussi jar na jar na xalaat xam nga dañoo bu ñu defee fee dañoo lancé euh, lancé appel d' appel d' appel d' appel d' offre la boo demee ci yenn réew yi ñu woyee CEDEA presque éco banque moom moo présent ci yenn réew yëpp boo demee ay war yi boo demee am yenn rëkk yi boo nga def ay euh, ñan ñan appel d' offre xam nga xam nga xam nga problème bi xam nga problème bi lan la ah? gars ñoom ñoom état ñoom. Hmm. ce régime là ils sont forts ay chiffres ak ay yooyu noonu dañu dañuy nax nit ñi xam nga la la ñoom ñoo viré wul l' argent à temps bu ñu ko doon viré à temps Ecobank amul benn problème pour virer wala wari yeneen kii yi nga wax nii bu ñu ko viré woon à temps ko joxe démb démb ba affaire kiiwee joxe nañ ko si saa si. Hmm. man gis naa sama message laa wax 17 heures étudiants yëpp jot nañ seen i bourse ñu war a am bourse fan lañ nekkoon booba léegi. xanaa xanaa duñu wax bi dafa maag xaalis et tout hmm. état bi caisse de sécurité ñooy def virement xaalis bi dem ci banques yi banques yi mën a jóge ci. su fekkee nag contrat bi su fekkee contrat bi foofu fekkee contrat la.

Voilà, de retour pour la deuxième partie de votre émission Ëttu Ndaw sur la 98.2 comme ni ñu leen ko waxee ginnaaw noddu gi nag ñu dellu si waat suñu deuxième partie ñu fas yéene nag waxtaan ak yéen ba tey ci li nga xam te ne grève étudiants yi bi ñu ràññee démb ci université Cheikh Anta Diop ba Gaston Berger Saint-Louis ak université Bambey ñu gis nañ ne diggante ni laaleer bi metti na looloo ci diggante étudiants yi ak ñi nga xam te ne ñoom ñoo di takk der yi ba ki nga xam te ne moom moo di Fallou Sène ci bakkanam gis nañ ne ba tey it waxtaan waaw jot nañ cee wax li nga xam te moo dox ci diggante nguur yeeg nguur geeg étudiants yi étudiant beeg banque bi banque beeg nguur gi jot nañ cee wax bu baax ba ci sax ñenn ñi nga xamante ni nag bu baax jot nañ seen bourse ak ñi jotaguloon seen bourse ñi ngi woon taxaw ci diggante banque bi ak étudiants yi Thierno Nourou ak Ablaye mm. mais man sama problème mooy bu fekkante ne étudiant bi dafa jël ñëw ñu bëgg a jël client simple bi privilégié ko mën nañ ubbi ligne bi ba tey ñu ñëwaat 88 628 10 mooy buntu bi ngeen ci bëggee dugg rek ah bu fekkente ne étudiant bi dafa ñëw bëgg a dugg récupérer li mu moom ñu bëgg a jël beneen client boo xam te du étudiant bëgg ko privilégié ci koom man dama jàpp ne du diggante banque bi ak étudiant mais banque bi la ak état bi parce que la banque bi war la état bi war banque bi moo tax banque bi mën a yëpp étudiant bi wala waaw gis nga <laughs> ma kure mooy li ma la waxoon sànq rek euh, loolu problème si banque bi la parce que tey jii nguur gi nguur gi mënul jàpp chaque étudiant bu ñëw euh, fayeeku bursam mu boll ak benn policier naan la kii bu eggee na dugg par force parce que client la état bi mënu ko def mais ñoom war nañ xam ne que ñii parce que tey ji boo boole woon bourse euh, bu étudiant yëpp di jël ay milliards la mhm. donc loolu ñoom waruñu seet rek étudiant bu nekk 36 000 la wala 60 000 ngay fayeeku kon boo ñëwee doo doo doo client loolu moo tax man la problème bi si banque bi la jar na nit ñi xoolaat bu baax banque bi aussi nu muy doxalee. retard bi aussi mën na nekk si ñoom. comme ni ma la ko waxee comme que ñoom tey jii ak état du Sénégal contrat moo leen lié bu euh, état bi bu fekkante ni dafa signé ak état bi chaque fin du mois di ma ma di nga ma fayal sama étudiants ay 2 milliards wala dara bu weer bi dee na leen fay. après moom mu dem si si ministère de l' de et des finances réglé ko foofu mais ñoom tamit waruñu xaar toog di seetaan ba mbir yi nekk fi ñuy soog a euh, fay parce que xam nañu ko contrat moo leen lii ak kii bi

donc ñom tamit war nañu am vraiment ngor bi nga xamanteni bu affaire yi tardé ñu xaar tuuti bañ wacc ci mbedd bi di tojak di gaañ parfois sax lima li ci gëna metti moy duñu yem rek ci lu ci lu état bi mom ba paré dama naan état mom ki dañ naan dañu yaakaar ñom lepp luñu yaq rek Macky Sall lañ ko yaqal dedet yaq luñ ko Macky Sall yaq luñ ko keneen mais ñun ñepp lañ ko yaqal ñun ñi di wa Sénégal ba paré bu ñuy ñom la plupart du temps dañuy yaqalé sax li nga xamanteni li ñeneen ñi ñoko mom ñi nga xamanteni ñi il n'ont rien à voir avec l'état wala dara 88 628 10 95 88 628 10 95 mais tamit que ñu wax tamit répression parce que euh, force de l'ordre Les gendarme policier force de l'ordre lañ leen mhm. euh, c'est pour rétablir l'ordre Il ne mhm. n'est-ce pas dépense des milliards pour la ak liif ak ñoom seen tu léegi nag man lan laa mënul comprendre mooy fan la ñuy mën a indi jee euh, euh, Sénégal gi ñu tool nii ñuy wax réewum démocratie réewum lépp ñuy indi force de l'ordre ñu war a maintenir l'ordre ñuy tiire ay balles réelles loolu laa mënul comprendre fenn Balla bar balle ñu ne balle perdue loolu euh, Bassirou Faye fay réelle à bout portant la ñu wax teel mu dee démb tamit Fallou bar réelle loolu laa xamul man je ne ba xam formation suñu suñu suñu suñu takk yi moo baaxul

bu ñu génn bu ñu génn université bi même lu ñuy manifester bu ñu génn université yi boo xoolee noonu la ñuy defe noonu lañ koy deferee mais bu ñu demee tey ji ba policiers yi di dugg ci biir kii waxuma la dugg ci biir yàqate kase dóor sax mais dañuy génnee ay armes di dóor kon tey ji yaakaar naa ni situation bi xaw naa doy waar boo xamante ni ñi ngi wax ñi ngi wax ñi ngi wax ñi ngi wax kii bi démb démb kii bi wax na ko la dernière fois ba mu kiiwee le ministre qu'est-ce qu'il a dit force le ministre euh, euh, forces armées la wax mhm. force restera à la mu war a wax xam nga waru koo wax force restera à la loi d'accord mais tey jii dañoo amoon ay ay loi yoo xamante ni dañ ne franchise universitaire am na policiers yi waruñoo dugg biir université waruñoo duggal te en plus maintenir l'ordre sincèrement soxlawul ngay génnee euh, fetal di ci di ci rey nit. ngay door ay bay reyal. mais aussi waruñoon génn université mais université étudiants yi li ñuy def biir université lañ koy defee fa la fa la ñuy taalee fa la ñuy baaree. tey ah. état wa état c'est vrai police waruloon rey on est d'accord mais tey est-ce que am toll nañ fi ay jamono à l'époque bu policiers yi demee ba sonn. dañ daan dugg di lay fekk ba ci biir campus yi ba ci seen biir chambre yi dañ leen fa daan fekk mais tey bu fekkante ne tey léegi étudiants yi bu fekkee dañ leen di daa ci policiers yi bu ñëwee mais li ma problème ragalatuñu policiers yi parce que dañuy taxaw jaakaarloog policiers yi face à face bu ñëw beneen dellu man léegi dama naan problème bi est tey nit ñi respecté ñoom étudiants yi ñi ngi li nga xam te moom moo di tenue bi wala dañoo respecté wala dañoo sol wala état d'urgence a nekk wala qu'est-ce sa pa gis nga xam nga sànq Abdoulaye nee na euh, dañ léegi gars yi respecté tuñu li nga xamante ni loolu mooy franchise universitaire. Mm-hmm. mais bu fekkente ni yow. ci régime ci régime bii nii waaw bu ñu wax ci régime bi ci régime bii mais Balla fan lañ ko reyee. parce que Balla c'était université juste la. waaw jeex na ba tey kon tey bu leen wax ne ci régime bi la ñu respecté. te solo am na ñoo xam te ne nañ Balla Gaye force loolu rey ñu ko ci parce que ki ka rey ci ñoom la jógee. ma ci ñenn ci loolu rek lañ lay mën a wax. loolu lañ leen mën a wax gis nga tey jii nii tey jii nii gouvernement bu fi nekk li mu def loolu loolu moo tax ma ne la tey jii bu ñu bàyyi woon euh, ma ñëwaat sànq rek mooy li mu doon wax si euh, franchise université mhm. tey étudiants yi bu fekkunte ni si biir université bi la ñuy yem def lu ñuy def d'accord mais saa yu ñuy manifester dañuy génn ci biti tere nit ñi dem tere jaaykat yi jaay mais loolu au nom de quoi yow kay réclamer li nga xamante ni li nga moom nga bàyyi keneen ki ak lu mu moom waaw parce que même ñi leen jiite ñi leen di jàngal ba ñuy grève it dañ ko grève ci ci ci mais jeex na boo defee grève man d'accord naa nañu def grève mën nañ taxaw ne tey kenn du ubbi restaurant yi wala da ngeen di ubbi restaurant yi par force ñu lekk d'accord mais boo ñëwee boole si ay damay toj ak ay damay lakk ak mais loolu quand mais yàq boo yàqee tamit du yow du yow kese nga yàqal mais ñeneen nga yàqal ñaata milliers de sénégalais nga yàqal bu ñu yàq c'est ñoom ñooy jàng mais bu ñu yaakaar ne ñoom rek aussi le Sénégal jur baykat bi si la bokk mhm. euh, sàmmkat bi si la bokk nappkat bi si la bokk donc ñooñu aussi ana seen wàll si Sénégal donc waruñu nekk tout le temps di yàq di kii mais bu fekkente ne tey jii nii armée bi wala police bi daf fi nekk tey pour aar li nga xamante lii ñun ñëpp ñoo ko moomandoo nit ñëw di ko yàq armée bi am na droit tere ko yàq mais bu fekkente ni yow da nga ñëw man ma yore sama sama sama arme ay sama laki mu sama gis nga bal bal bal ken joxu ñu autorisation ben policier muy tirer ci doomu adama mhm. mais bu fekkante ni yow tay ji ni makro bu nit ñu won tay jëm la bëgg bëgg la faat da koy da ngay da ngay riposter bo amé dara luy gagne rek koy def ablay pareillement mais dembu ñom ñoo encercler policier euh, gendarmerie bu gendarmerie dawul won doo dégg doo dégg décès si côté étudiants yi de mais si côté si côté police gendarmerie bi nga koy dégg mais jeex na taal nañu auto am nañu man am na benn policier bi nga xamante ni gis naa benn photo bi nga xamante ni dafa band fii kanam bi yëpp xeer lañ ko dóor mais kooku aussi mënoon na dee loolu la kenn daal rafetiwul ñu rey doomu aadama mais quand même étudiants ñuy nu ñuy manifester man loolu laa àndul nit ki mën nga réclamer li nga xamante ni yaa ko moom sans pour autant nga taal nga taal ay pneu wala nga taal ay amphi wala rawatina nga yàq li nga xamante ni lii ñi ñi yëpp ñoo ko bokk xam nga kenn kenn rafetlu mm-hmm. a grève comme ñi nga xamante ni ñoom la seen kilifa yi doon grève muy mm-hmm. euh, dugg ci classe yi duñu jàng wala xëy def comme li seen wax lu dañuy lekk par force ndox ñuy xëy def li ñuy def ci biir campus ba mm-hmm. ah, bu boobaa ñëpp dinañ ànd ak ñoom te dinañ xam ne eh, nguur ñoom laa ne mais est ce que tey man sama problème est ce tey yoon la tey ñoom ñuy génn ci tali bi mhm. di baaree ka yàq loo xam te ni nii askan wi la est ce que tey moom la enseignant yi doon def ba bañ bañ fa saafara xam nga Makoro xam nga moom kenn yàq moomeelu askan bi li nga xamante ni ça appartient à tout le rafetlu ko ak raison boo mën a am duñ ko rafetlu même su fekkee sax yow sa raison bi d'accord nit ñi mën nañ cee d'accord mais xam nga Sénégal fii Dakar laay wax sax pour nga organiser une manifestation pacifique rek préfet ay ndëgg sërëx ndëgg sërëx bu ne la lay bu ne la lay layal. Mhm. ngir bari nga manifesté. Mhm. tey jii bu dul université privée. Mhm. étudiant étudiant kii université buñ déposé woon demande kii préfet day bañ. da naan trouble à l' ordre public ak xaw ma patati patata wala manque de policier nangam nangam. mais su fekkee dañuy déposé ay ay ay demande wala ñu bëgg manifester ñu bañ hmm. ils sont obligés ñu génn hors du campus hmm. bu ñu bëggee gars yi gisee ils sont obligés ñu génn hors du campus hmm. mais xam nga la laa mën comprendre fekkee maintenir de l'ordre rek on n'a pas besoin de barre réelle loolu foog ñu wax ko policier dëgg la ay ordre lañ jot ay ordre lañ jot mais ñi nga xamante ni ñoom ñooy jot ordre yi ñi nga xamante ni ñooy jot ordre yi ak ñi nga xamante ni ñooy dóor ñooy pisale ñooñu ñoom rek ñoo ci laru parce que wax naa ko Bassirou Faye ba mu ba mu deewee policier yi ñu ci jàpp dañoo nier les faits ne du ñoom. Mhm. démb wax naa ko fii ma ne policier bi rey de après enquête bi policier ba ga ca nooy gendarme ba ca gën a nooy bopp. Mhm. dañuy jàpp na yow yaa ko def. te mhm. yàlla sax mën naa def du moom moo tiire. du moom moo tiire donc man j'en appelle à la responsable des policiers gis nga ordre. yàlla sax yàlla rek fii moo fi mën a jox ne defal nga def te doo ci teg question doo ci ordre quel que soit fu mu jógee. c'est à discuter man du ma jël tey jii yow sama chef nga toog fële nga jël ne ma. tiireel jëlal bal ñuy dem chargé ji lacrymogène nga ne ma defal defalal bal réel si sa téléphone si sa pistolet bu ñu demee nga tiire mhm. léegi ma tiire man nit dee ñu jàpp ma man sama carrière yàqu ñu dañ ma ayet su ma demee layoo ko sama yàlla ci lan moom mu toog di galayaa bi du mës a jug défendre su fekkee dañ ne police police la lañ wax dans l'honneur au service de la public euh, du public dans l'honneur au service du public yow moom amul honneur amul ngoru yow tey ji ne man de ordre bi man maa ko jox mu tiire man maa ko wax lii dañuy làqatu police auxiliaire baak nangam ñoom la ñuy jàpp di leen tëj te loolu du yoon ñoom ñoom ñoo war a mën a bañ loolu genre waxu waxuma leen ñu ñu discuter mais xamala la buñ nañu ànd ak seen xel parce que ay policiers lañ jàng nañ nañu ànd ak seen xel du ma jël sama pistolet tiire rey doom jaam après man maay paye les pots cassés man mi ki ma jox ordre bi moom ma nga fële tëdd loolu du yoon loolu moo fi indi problème yi yëpp ñaari policiers ñu jàpp ils ont nié mais ils ont été condamnés à vingt ans de prison fan la mujj ana seeni chef gis nga tey gis nga tey jii ñu leen jox ordre nii man yaakaar naa ni kenn du jox nit ki ordre ne ko tiireel si diw wala si diw li ma bëgg nga xam mooy ñoom bu ñuy dem ñoom policiers yi policier boo gis dañ lay jox pistolet bu ànd ak ay bal réel yow tey jii nii bu fekkente ni yow wóor na la liggéey tey jii am na ñi nga xamante ni ñoom bu ñu bu ñu jekkoo rek dañ lay rey mhm. mais da ngay sa bopp waaw foofu laa ko bëggoon sa ba pare taxawal mhm. a wax mooy est-ce mhm. ba waral ñu rey euh, Fallou Sène parce que position boobu keneen ku mu fa doonoon man dama mi ngi muus na dàq ko mu tëj fenn day tëy riposte yi dem sa moo ko du question de fekkoon tey jii dañoo wane si image yi ñu ñu encercler dàq ci affaire yi ba jàppalee hmm. waa ji tiire d'accord amul problème xamul tax mais étudiant yow étudiant lan lay xeexee étudiant xeer lay xeexee mais démb démb étudiant xeer lay xeexee xamal nu muy def day jël day jël kii bu bu tojee taabu rek lay leen taal jël xeer policiers yi sax dañ koo naan dañuy jël xeer yor pistolet mës ngaa gis étudiant bu yor paaka ci grève campus dañu yor dañu yor dañu yor dañu yor euh, peut-être euh, yor li ay xeer dañuy yor ay jaasi dañuy yor ay lépp li ma la bëgg xamal mooy démb démb bi directeur woowee gendarme pour ñu ñëw c'était pour que ñu sécuriser restaurant bi gars yi bañ a toj gis nga loolu moo tax man la bu fekkante ni dañ doon ñëw dugg lekk génn dem seen yoon d'accord mais képp ku nar a nag yàq li nga xamante ni lii alalu réew mi la force de l'ordre mu ngi fii di nga jàmbarloo ak ñoom benn bu fekkente ni ñoom dañu dañ ñëw lekk nii rek dem d'accord kenn du leen def dara mais boo ñëwee tey ji nii nga bëgg a yàq force de l'ordre mu ngi foofu dina taxaw jàmbarloo ak beneen mbir mi mooy lan ñoom bi ñu ñëwee seen yéene nekkul woon ñu tiire gis nga boo boo yoree boo amee autorisation port d'arme mhm. dañ naan la bu fekkente ni nit ki ñëw na di la di bëgg a dal sa kaw na nga jël bal bi nga tiire ko en l'air waaw comprendre mhm. dañoo njëkk def sommation gars yi wuñu mais loolu laa la wax tey ji boo génnee université bu mënti doon que ça soit Bambey que ça soit Cheikh Anta Diop wala keneen nombre d'étudiants bu fa nekk

man tey teg gi nga genre xeexee wala genre grève bu ci amee ñoom dañ ciy dem bokk te xam nga tey ñooñu bu ñu bokkee ci grève dañuy xam force ak faiblesse policiers yi maanaam force ak faiblesse om euh, force de l'ordre yi maanaam tey imagine tey pay tey askan bi tey bu ñu wàccoon tey di xeex ak policiers yi tey policiers yi duñu leen mën a jaar fa parce que lépp lu ñu teg ñoom ñoom ñoo ñooñu anciens libérés yooyu dinañ xam dinañ xam ne ñii fii lañ leen di jaar parce que ñii fi mooy seen for policier fii la fii la fii yenn arme comme ni ko Seydou Seydou mu waxee man tey ñooñu bu étudiants yi di grève dañ siy bokk. Maodo xam nga ñi man mi mel ni tey ñi wax ni ñii gàmmoo ak ñii raas démb. dañ siy bokk xam nga démb démb moom amul ay raas démb ak kii démb ñu doon gàmmoo fa ñoom ñoom ñoo fa nekkoon yi ak policiers yi ak gendarmerie yi. bu jël seen waaw jël jël jël jël bu fa nekk ñu jël ki nekk ci ligne bi 88 628 10 95 allo Allô bonsoir. Allô. Ah. Allô, vous m'entendez Oui, oui, on t'entend très bien. Non, je vous passe tous le bonjour sur le plateau. C'est très bien de débattre parce que tous les pays du monde, euh, tous les pays développés du monde entier, il faut débattre. C'est très bien. Mais je vais vous dire une chose. Oui. Bavure policière n'existe même plus en France. Mhm. Une bavure policière n'est rien d'autre qu'avoir une balle réelle dans, mhm. dans, son arme. Mhm. Voilà, donc ça n'existe même plus en France. Mhm. Effectivement, comme le monsieur vient de dire, celui qui va payer les pots cassés, c'est celui qui a tiré. Mhm. Mais pourquoi tirer sur des gens mhm. on, est, dans quel siècle On est dans un pays civilisé. Ah, et il n'y a plus de. La bataille de Badar n'existe plus, la bataille de Khandar n'existe plus, la bataille de n'existe plus. Exactement. Oui, mais on est dans un pays civilisé. Et Ce pays civilisé-là, on doit l'atteindre dès maintenant. On ne peut pas faire les cinq prières dans la mosquée mhm. et sortir tirer sur une personne, mhm. soit disant que je suis musulman je suis n'importe quelle, n'importe quelle religion. Ça n'existe plus. Exactement. Mhm. Ça n'existe plus. Donc il faut qu'ils arrêtent quand même. Et puis les manifestations, normal, un pays qui veut développer, les gens, ils ont le droit de faire des marches, ils ont le droit de manifester. Mais je, on est entièrement d'accord. Les gens qui manifestent, ils mm-hmm. n'ont pas à casser. Parce que tout ce que tu casses, c'est toi qui payes. C'est l'argent des contribuables. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, oh, oh, oh, il ne faut pas casser. Mais laisse-les. Il faut les entourer comme la France. Euh, Ville. Vu la, raison quand Macky est parti en France tout récemment. Bon, euh, devant l'ambassade du Sénégal. Les manifestants étaient encadrés par des policiers. Exactement. C'est fait. Bon, je m'excuse, je m'appelle Ibrahim Dien. Voilà, je suis désolé, mais c'est très bien de débattre. Mais il faut débattre sur la raison, mais pas pour se défendre. Pas pour se être sur la position de défenseur, Parce que moi, je suis un policier, je dois défendre mon compatriote. Non, non, non, non. Mm-hmm. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ibrahim J'ai une question, oui, monsieur. Monsieur Ibrahim une question. Oui. Si quelqu'un avait une arme et, euh, tentait de vous tuer, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez riposter ou bien vous allez. Euh, qu'est-ce que vous allez faire moi, je suis avec d'autres policiers. Je suis, on est combien mhm. Les policiers sont combien Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un tuer un policier au Sénégal ou bien un groupe battre, euh, euh, euh, tabasser un policier jusqu'à sa mort Est-ce que vous l'avez déjà entendu non, mais vous répondez à ma question si quelqu'un. Non, non, la, question, je vous retourne la question avant de vous donner la réponse. <laughs> Est-ce que vous avez déjà entendu un policier qui a été tabassé jusqu'à sa mort Non. ben voilà, D'accord. Vous êtes la solution. Merci, merci, beaucoup. merci beaucoup, <laughs> Monsieur Dien. 88 690 95 monsieur Ibrahima Dieng ñu ngi koy nuyu moom it ko ziar mën ngeen def ni moom dugg joxe sen xalat 88 628 10 95 waaye Seydou euh, xam nga xam nga euh, monsieur Dieng ñu ngi euh, ñu ngi koy sant diko ko gërëm si appel bi mm-hmm. mais pour wóli ne rek mm-hmm. parfois aussi am na li nga xamante ni di kenn mënu ko daw mm-hmm. euh motugul sax une semaine ah au niveau des États-Unis ben élève bi nga xamante 16 ans la am mo tiré ci benen lycée bal réel mhm. donc nag bu demee ba li am gis nga ni kii nit la rek loolu laa lay wax ni tey ji yow boo génnoon nga yore benn gànnaay bu nit ñëwee bëgg a dal sa kaw di nga ko dóor mhm. doo xool ni kay man war naa def di wala ma dóor ma def mais mhm. am nañu ay jabar am nañu ay yaay am bu kenn ki ñëwee bëgg a euh, quand même faagaagal seen dund foog nga wax da nga joxe da exemple États-Unis foofu chaque jour dafay presque mën nañoo wax chaque weer dafay am ah. d'accord nañ d'accord nañ parce que ñoo utiliser yor arme et tout mais là on parle de maintien de l'ordre wax na ko bavure policière amatul fenn ñoom ils ont été formés boo demee seen camp yi dañuy entraîner dañuy jël yenn policiers yi ñu taxaw ñeneen jël ñu xool nan la ñuy maintenir l'ordre bu ñu leen attaqué comment ils se défendent loolu dañ leen koy jàngal ni ñuy tiiree lacrymogène dañ leen koy jàngal normalement lacrymogène bu ñu koy tiiree dañoo war a tiiree ci kaw mais fii ngay gis manifestation policier bu jàkkaaroog nit ñi jël lacrymogène ni ko teel récemment booy booy booy booy Thiès bi élève bi lan moo yàq bëtam. Mhm. lacrymogène la lacrymogène bi ñu ko téere woon ci kaw dina dina dina dina dal ci suuf. boo tiree si kaw tamit bu wàccee mën na dal fu nekk ah. mais moo lu mën gën a loolu moo tane parce que tubaab lu mu raison sécurité bu tubaab def xam na lu tax. boo tiiree ci kaw buy wàcc boo ko tiiree buy séer balaa ngay ne di ngeen daw mais boo jëlee nit jàkkaaroo yi jël lacrymogène ne ko téel mën naa rey doomu jàmbur. li ma wax dëgg la bavure policière amatul fenn donc ñoom ñoom je sais pas si c'est la formation wala te li ma li ma wax sànq rek auxiliaires yi ñoom ñooy payer les pots cassés mais ñoom seen supérieurs yi dale du leen dal responsabilité nag nga am dans euh, sa conscience la mort d'un étudiant d'un jeune boo xamante ni il était espoir il était famille dañoo yaakaaroon ci moom vingt 26 ans lam xaw ma. Mhm. Bassirou Faye c'était la même chose. nga ray ko yow parce que lan parce que lan euh, jékki-jékki nga rek génnee sa pistolet ba reyal dóor ni dóor ni teel mu dee pour lan pour lan. pour lan nga koy. mais li ma li ma bëgg nga xam mooy jàngale yow nan ngay nan ngay nan ngay defendro yow nan ngay défendre est ce que d' après li li li monsieur Dieng wax léegi léegi est ce que tey problème formation du des du des. non gis nga tey jii nii euh, policiers yi nga xamante ni ñoom la ñuy yóbbu ñuy défendre ci ñuy ci aar euh, marché wala dara ñooñu suivre nañu formation bu baax bu dul woon loolu seen supérieur duñu leen wàccee ñuy dem di encadrer yenn marché wala di dem si yenn terrain yi duñ ko nangu. mais ñooñu am nañu formation bu mat li ma li laay wax sànq man loolu laa andul ñoom du ñu jël di euh, lacrymogène di ko tiire nii si doomu aadama duñ ko def parce que ñoom aussi bu leen fàttali seen rakk yaa ngi jàng foofu seen jarbaat yaa ngi jàng foofu seen doom yaa ngi jàng foofu nga gis bu maanaam bu bëri kii nga euh, dem ngeen di song policiers yi bu ñu tiire si kaw affaire bu wàcc si yéen lay wàcc mhm. bal réel bi aussi pareil nit ki bu fekkente ni yaa ngi ñëw di ma song su bi mais mën na daal fu nekk. maintien de l'ordre ak barrière sax la. mais ñooñu ñooñu ñooñu gis nga tey jii taxaw mais est-ce que nit ñi ragalati nañ barrière parce que boo policier bu defee nii dóor xam nañ kii dóor la ci kaw la dóor dañuy gën a song aussi. laay mais démb démb loolu laa bëgg laay xam gis nga démb. Mm-hmm. démb ñoom ab étudiants yi ñoom ñoo dem dàq gendarmerie ba ñu daw ñu nangu seen kii bu ñu yoroon lépp mais ku la wax si biir loolu amul ku si yor récupérer waale beneen pistolet wala dara. Mm-hmm. mais on ne sait jamais il faut se poser cette question là bu leen jàpp les da bëgg que que si kaw armée bi. non c'est attends c'est attends. non c'est que li sama m'a sama problème mooy non foog ma en logique mais ma ñëw li sama problème mooy tey bu ñu rayon ben policier coow du fa am. du ñu rey policier mais il suffit que policier rey ben civil. du ñu Rayon policier rey nañu fi policier en 2011. 2000 2012. policier euh, faut Ndiaye xam nga ñu rey ko. Hmm. hein parce que ñoom policiers yi ñoom policiers une stratégie de défense bu ñu maintenir lool c'est toujours rester en groupe doo mës a gis ñu tasaaroo ñom di dem dofuñu. toujours groupé. groupé toujours groupé. Mm-hmm. repli non, dañ leen koy jàngal xam nañ ko bax dégg nañ ko. Mm-hmm. le policier Fodé Ndiaye mom il a été mom mo dem mom kasse top ay boy, boy boy top leen mom kasse di xeex ñom parce que xam nga booy man sax dama ko bama ko déggé ndeysaan yalla nako yalla yàlla yére maa ngi leen tooñ naan xam naa booy Pikine la dëkk ndax dafa am fit boy Pikine dañoo am fit mang koy mang koy mang koy ñaar yàlla yërëm waaw xam nga loolu mais gis nga tay ji ñom quel que soit leur nombre policier, quel que soit leur nombre tay ji même manifestation day am il suffit nga yónnee ñaari policiers manifestation ba tas. Mhm. loolu lay wax ni ñaari policiers nga yónnee dañuy ñëw gaare teg dóor la kër manifestation ba tas ñu jël seen bagage dem ñibbi donc ñoom yor nañ les stratégies yor nañ li nga xamante ne ba tey ji étudiants yi ak nombre bu ñu yem ak nombre bu ñu am ñu génn am na am na manifestation bu fa amoon am na à l'UGB gendarmerie foofu parce que région de Saint-Louis gendarmerie ñooy ñoo fay dem. ñoo fay dem bu ñu demee bañ demee ba leen bañ sentiré leen kii dañ leen dominer dañoo reculer génn ci biti biti génn ci biti université bi taxaw ci biti dóorante ñoom ay ay lacrymogène

lool foog ñu wax ko même bu ñu daanee sanctionné waatee tamit je te jure fii laa la koy waxee dina amaat dinañ dooraat beneen étudiant mu wax mais non non avec cette allure bi ma gis moom ba ci ba xeex bi narul yem fii parce que bi yoon étudiant ils ont décidé man damay ragal sax euh, xaw ma nag euh, yàlla fi am 88 du 10 95 mais te euh, man son problème mooy bu ñu reyoon tey homme de tenue ba ci récemment pénitencier yi fii keroog am na benn prisonnier bu jàpp benn pénitencier dóor ko dóor yi metti kenn waxut. le lendemain policier euh, pénitencier boobu ak keneen jàpp prisonnier bi dóor ko ku nekk bëgg cee ku nekk bëgg a wax ku nekk bëgg a wax man le problème qui se pose est que buñ tey buñ def homme de tenue la ñu rey wala moom lañ dóor gaañ nañ ci ay homme de tenue xeexul 2008 gaañ nañ ci ay policiers mhm. mais kenn waxul mhm. mais parce que coolu cool yëpp mi ngi ci civil bi ñu rey civil bi ñu rey civil bi ñu rey ma ne la Makouro xam nga lan lan coow bi lan moo ko indi mooy ñi nga xamante ni dañoo jóg kut ko kut pour jël góor gi moo tax dañuy xool di instrumentaliser booy yi di di jéem yàq xelu askan wi ñii dañoo yóbbu seen doom yi di leen di utiliser pour ñu rey leen wala dara mais li nga wax gis nga tey ji ni bu fekkonte ni benn policier la ñu faat mm-hmm. wax ji du egg fenn mais amaana sax yenn média bi ñu ko wax donc nag ñoom tamit nañu nañu dellu seen xel ñu xam ne policier bi sénégalais la étudiant bi sénégalais la comme ni nga ko waxee woon sànq baykat bi sénégalais la ñun daal rafetlu ñu dee mais quand même bu nit ki bu la bu naree sa ruux bi rek boo mu nee yeneen yi euh, malakal mawtu bii di ñëw sax euh, da da bu ñëwoon tey jii nga mën si moom nga di nga jéem a defante ak moom ba mu tàng jël balaa muy yóbbu sa de <laughs> dee kenn ref la ko tey jii bu policier dee woon gars yi dinañ ci wax mais policier du fa dee xam nga lu tax policier du fa parce que étudiants yi duñu ay raykat étudiants yi yoruñu pisale ba rayal di tiire ci kii yi xeex xeex bu ñuy xeex xeex lu mu metti lu mu metti metti ah? xeer la ñuy sànni policier yi ñu gaañ noonu ay xeer lañ mën naa rey mën naa rey liif mën naa rey d'accord naa d'accord naa mais tey jii ak condition ak euh, université bu ñu nekk campus la ñu nekk dañu nekk ci campus nekk ci daara ji koy di jàng foofu ak nu mën demee même bu dul même bu ñu waxul Francis Investor na xam naa ne moom jalgati nañ ko ba yàgg nguur gi fi nekk ñoo njëkk jalgati euh, li nga xamante ni mooy Francis Investor nañ ko waxante dëgg bañ bañ demee ba Mimi en tant que ministre de la justice naan naan dugg dañu dañu am nañ droit léegi di dugg ci biir université bi foofu la foofu la étudiants yëpp la dee commencé bëri nañu waxante dëgg parce que bañ naan yem ci biti bañ biti donte sax en 2001 rey nañ fi Balla Gaye mais bañ naan yem ci biti daawoon dégg ku dee daawoon dégg police sax buy gaañu au contraire dañ lan yàq rek dégâts matériels rek moo laan mais léegi bu ñu demee tey jii ba tey jii respecté tuñ loolu respecté tuñ France université ñu dugg di rey su ay étudiants ñoo xamante ne ay avenir lañ ci tayef xaw ma tayef laa ko mën a tudd xaw ma ci inconscience lañ ko teg xaw ma di rey kon loolu c'est à revoir donc foog ñu gisaat man j'en appelle au ñi nga xamante ne ñooy autorité gendarmerie yeeg policier yeeg yooyu noonu qui disent à leurs auxiliaires ne pas de ne pas tirer parce que tey jii même même les auxiliaires bu ñu leen waxee nañ tirer nañ bañ quitte à ce que ñu rajee leen ci armée bi nañ bañ bu ñu tiiree parce que ñoom ñoom ñooy payer les pots ji ñaari policiers yu jàpp yàquluñ seen njaboot mhm. seen carrière ana gi joxe woon leen fa yabaloon ana boo gis ordre lay doxee kenn du lay doxee a gis nga ji bu ñu demoon taxaw rek yor seen kii dañu ñëw rek tiré de dañuy xaar bañ ne leen affaire baa ngi dégénéré tiré leen lacrymogène non la def. c'est la même chose rek. sama problème moy est-ce que tay ci laale bi diggante étudiant yi ak tak der est-ce que amul lu laalu ci ginnaaw est-ce que amul ñu nekk ci ginnaaw di ngemb est-ce que amul ñu nekk ci ginnaaw di xamb taal waaw mo lolu lolu je crois que en tout cas sànq moy ñi nga xamanteni ni euh, tay ji bu fekkente ni man dama xif awma dara yow nga am say milliards ak tout. nga nga nga di ma jox ay xaalis yu nga xamante ni mosuma ko gis wala dara di nga ma def loolu di nga xamante ni lii mënu ma waruma ko woon def sax wala mënu ko woon def parce que lan la yow yaa may jox xaalis yow yaa may jox euh, oto bi may yóbbu yow yaa may jox lu nekk lu nekk yaa may jox tey jii nii bu fekkunte ni étudiants kese la ñoom xam nga tey boo boo jëlee logo boobu ñu bind si kii université Cheikh Anta Diop mooy euh, Meya Meya Lix euh, kii mais loolu lumière est ma force donc ñoom li ma la wax sànq yow munoo dem ba université ah nga am bagage d' intellectuel bu bëri ba pare quand même di laalanteeg yow euh, quand même force de l' ordre rien que tenue bu ñu sol rek waroon nga ko respecté xam nga mais boo jógee nag yow nga bëgg a li nga xamante ni lii nit ñi ñëpp ñoo ko moom mais ñoom ñu ngi fii quand même pour pour pour pour euh, pour mettre l' ordre. xam nga li non laay bu njëkk. bo ñi dañoo ragaloon homme de tenue mais léegi nga mel ni homme de tenue kenn ragalu ko. ragal nañ leen de du question de ñàkk ragal ak kii de ragal nañ leen jox nañ leen cër. xamul tax mais tey ji ku nekk bu loolu fa nga yem dina mais tey ji étudiant bi boo ko xiifalee bëgg koo jàngal tamit fii ñun bu ñu xiifee fii xam naa ni ak gi di ñëw journal bi di di di la bu ñu xiifee fii saako bu deful dara du mën a taxaw étudiant yi mënoo koo xiifal ay weer joxoo ko ay kiom ba pare nga ñëw nga ñëw muy manifester nga ne doo du manifester tey manifester ak nu mën a demee day manifester ñoom policiers yi ñoom xaw ma lu leen dal je ne sais pas man wax naa tase naa ba ma noon ba Aly Ngouille Ndiaye ñëwee woon à Pikine ma ñëw ma ñëw ne gendarme bi est-ce que parce que dama xawoon tardé pour man ministre bi ñëw na pare ma laaj ko ba xam ministre bi ñëw xam nga lu ma tontu il m'a répondu avec arrogance man nga koy laaj. ma dama tak sama fit won ak sama carte presse la ko wan mané ko est ce que ministre ñew mu ne man nga koy laaj dama tak sama fit mané ko suma ko laaj la yow la koy laaj arrogance bobu non ñi andal ta xalé la arrogance bobu ñi andal rek mën na tax tay ji ñom buñu gisé ay étudiants yi manifester parce que bourse wala nang alors que ñom peut-être seen seen indemnité ñu ñu xol seen ñu jox c'est des miettes ñoo rek mën na tax tay ji nga gis ben policier bo xam wala gendarme bu iñan jël jël pistolet tiré yoy yep mën na doon man sama problème moy est ce que tay étudiants yi légui homme de tenue légui bo xolé ñom ak ay étudiants même génération lay parce que bo liggé ci arbre

ñooy maanaam tirer ay homme de bras maanaam def ay yoo xam ne c'est un peu c'est barbarie euh, ci li ma ko mën a wax mais ñu parce que boo xoolee euh, armée bi ay xale yu ndaw ñoo ciy nekk ñoo xam te ni sax yow da lay leer ne ñii bu loon seen kii du duñu sax sa morom bu booy koo ci dajaloon ci benn boo ko ne jaaral fii mu jaar fii ndax xale bu ndaw say rakk sax a koy mag est-ce que tey man li ma jàppale li ñuy ay xale seen xel ñorogul yenn ñor yi moo waral yenn affaires yi di am euh, Macro je pense que ñoom mën nañ nekk xale si seen âge mais dès l'instant que yow nga admis concours boobu dem ñu jox la formation bi war ba war la déployer ci terrain bi loolu wane nañ ko yow tu es majeur li jar wax mooy que étudiants yi bu ñu xool ni kii euh, comme ni ko laay waxee sànq booy bu ndaw la ah wax naa ko tontu na ma lii mais bu demee ba sol tenue bi yow respecté ko parce que boo tenue bi day am sa drapeau réew te danga war a respecté sa réew respecté drapeau sa réew respecté homme de tenue sa réew mais bu ñu xool ni que kii xale la warul taxaw fii di ma di ma tontu wala yenn yi. mais ñoom homme de tenue ñoom ñoo respecté wu seen bopp. ñoom dañu war a respect. ñoom si réew mi lañ bokk kon. ci réew mi lañ bokk ci réew mi lañ bokk ba a respecté avant boo wër na yàlla boo demee si respect respect bu jë bu matee wax ñun ñoo war a am respect bu mag si ñoom parce que yow heure bi ngay tëdd di nelaw bay bay bay gént ñoom ñu ngi si si tali bi. ñu ngi si kii sax tëdd fanaanoo sam jéeg. ñoom ñoom ñoom ñoom ñu taxaw di ah, te fekk ñoom ñu am na jéeg boo xam ne boo gën a baax ñooñu nga war a respecté non am nag dafa am dëgg la dëgg la dañ war a respecté mais hmm. respect respect nekkul loo xamante ni président de la république nekkul fii naan respecté leen parce que man maay président day wane lu tax ñu koy respecté njiit boo mën a doon da wane lu tax ñu lay respecté ñoom homme de tenue ñoom non seulement respecté wuñ policier yow tey jii boo demoon légaliser rek ay taxawal nii et eh, defal nii et eh, bu defal nii noonu la ñuy waxee ànduñu ak dal xaw ma lan la man je ne sais pas je ne sais pas man formation. parce que dama naa defee muy muy mer naa ma non ñun jàng nañ léegi li ma ay way wax. loolu ñoom ñëpp la ba ci a wax daal mhm. ay responsabilité su fekkee dafa joxe ay directives mhm. gis nañu directive yooyu noonu ñi ko jox respecté wuñ ko il a plein droit le président ak keneen ak il a plein droit mu jël les sanctions qu'il faut ñi ñi euh, Seynour dama koo dénk na ko deel fay bourse yi Nour di def lu ko neex ma jëlee ko fa teg fa keneen ku ko mën c'est aussi simple que ça. il faut que l'État prenne les sanctions qu'il faut mu jël sanctions yi nga xamante ni war na ngir lii ñuy bañ a amati parce que tey jii nag yaakaar naa ñaari étudiants yi dee si si sa si premier mandat boo amee deuxième mandat nag xamoo fu ñu ah en tout cas daal les sanctions qu'il faut tiens le mot de la fin. Euh, waaw Makoura maa ngi lay sant di la gërëm di sant Abdoulaye moo bokkaloon plateau bi euh, di ñaan yàlla subhaanahu wa taala li li ni mel bañ a amaat ci suñu euh, di ñaax étudiants yi ñoom ñu xam jang njàng leen tax job jóg dañu dem sàkku xam-xam bëgg tekki jaral seen i waajur bu leen 36000 euh, jaral wàcc ñuy euh, jàmbarloog force de l'ordre bay yàq wala dara euh, aussi bu nit ñi blâmer force de l'ordre bi parce que tamit nit bu jógee bu bu jógee bëgg yàq li nga xamante ni lii nit ñi ñëpp ñoo ko moom ki nga xamante ni moom lañ fi teg pour mu ñuy aar suñu aral am na droit di di jéem a kii di ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm si Sénégal et incha allah xam nañ ni président de la république dina si jël matuwaay yu war su demee ba ñu xam ñan ñoo nekk les vrais responsables dinañu fay li nga xamante ni moom mooy les pots di jaajëfal euh, Seydou Nourou Niass baax di amoon mbégte ak bànneex bokk moom euh, kii euh, plateau bi di la wax rek le président de la république je le dis il a intérêt à ce que ces choses là ne se reproduisent plus parce que ñaari étudiants yi dee si moom yaakaar doy na doy sëkk donc man jàpp naa ni li ni am beneen yoon dina fay étudiants yi ñu lay jaajëfal bu baax yow it Makoro Diagne jaajëfal ñu fi woote Ibrahima Dieng ak suñu papa Baba Warga ak ñi nga xamante sukkandiku na fi muy nguur gi nag di étudiants yi di askan wi di banques yi ñoom ñëpp war nañ cee jàng ba lu mel ni war war fay mën a dakk war fay mën a am soit weer deewee nag ngalla nag nguur gi na jox étudiants yi lu ñu moom étudiants yi nag bu fekkante ne mbir bi yéex na ngalla ñoom it nañ ko manifeste neneen bañ a di wàcc tale bi di toj lo xam askan bi ñoko mom li toj wala di yàq lo xam ni nii euh, euh, dekk bi lay lompoñ euh, de wax ndax bu fu bourse kiiwee su étudiant di lalé nak di ngay gis né fitna day daldi am motax nak nga la nak nañu waxtaan seen bir ñu mëna a jamm jàmm di am chaque wer dee étudiant am li ñu moom ah, nguur gi tamit di def liko ko war étudiant di def li leen war jamm mëna am Sénégal dem ci kanam li c'était votre émission ëttu ndaw ñi nak sur la 98.2 àllarba gu nek mercredi 16h ba 17h30 Makura Diagne fi nekkoon ànd ak ak chroniqueur Seydou Nourou Niass Abdoulaye Diop ñu leen di jox rendez-vous ba mercredi prochain ci benen thème inshallah